mukarraman bi qirat tahaati wa sadadi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu ci sunu site bi ñuy wax sunu ak point com ñuy ànd ak yéen ci naafile yi am ci weeru koor wi ñu koy jukkee ci téereb sëriñ son yi bu mbàkke rahimahullahu yal na yàlla dolli ko ak gërëm muy téere bi ni wax xoratul hayni tey nu ñëw ci guddik fukkeel bi ak ñeent guddik fukkeel bi ak ñeent ñetti ràkka la ñu ciy julli ràkka bu nekk dinañ ci jàng isaa jaa nasrullahi juróom benn yoon ñu baamtuwaatal leen ko guddik fukkeel ak ñeent ci téere sëriñ Souhaïbou dinañ ci julli ñetti ràkka ràkka bu nekk dinañ ci jàng faatiha ak isaa jaa nasrullahi juróom ñaari yoon mbokk yi yàlla nangu seeni koor ak seeni naafila te nangul na ko kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayaaman maadudaat yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa silta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqira taahaati wasadadi